nuyoo bi te pos bi papa Maxime Barga dox papa Mansour Diop bu doxal ko ñëpp ñëpp ñëpp incha allah waaw di nuyu ñëpp di nuyu Lac de Guiers gis naa ne père loolu moo ko teewal ñu ne leen ñu koy nuyu bu baax a baax loolu ñu koy nuyu bu baax waaw gars yi li ñu waxtaan si pour ñu tënk dafay yomb situation bi ñu ñëpp ñoo ko gisandoo dafa am loo xam ne dañ koy teel a wax mooy dañoo nekk situation boo xamante ni contexte bi ñu nekk mooy contexte coronavirus moom amul kenn kuy naataab ni feebar bi mi ngi fi te feebar bi existé na te ñun mbëri dañ ko nangu baax a baax xam ne feebar bi existé na te feebar bi bu ñu mucc yi ñëpp xam nañ ko dañuy takk suñu masque dañuy respecté distance yi dañuy utiliser les gels antiseptiques te loolu ñu ngi ci chaque jour loolu moom nataawoon ko kon état bi moo xam ne ñu léegi dañoo nangu ne feebar bi ñu seen te ñu ngi wax nañ ci ñu bëri ñu njëkk ay match waxuma la balaa ñuy dajale ni dajale di ànd ak Gris Bordeaux ay match bu ne mbër bu ne nga def ci logo di ko jox sa fan si club bi si te gis naa ko ay match am rek rek noonu man noonu ëmb keneen ku nekk xam nañ ne feebar bi lu existé mu mais dafa am loo xamante ni dama ko yàgg a wax mbëri ma benn instant lu ñu xañ tuuti mooy suñu adversité dañ ko commencé di boole si suñu intérêt collectif ñun ñu toog fi ñëpp teewul bu liy jeexee rek bu avancé taxawee dañuy bëri parce que loolu mooy suñu métier bu ñu demee ba war a défendre suñu intérêt collectif dañoo war a booloo bokk ndey ak bàyyi kon défendre buggee fii yëpp ku nekk ngay ñibbi sa kër nga ñëw rek say entraînement ak say sax bu ñu waree bëri ñu bëri xeex parce que moom suñu métier. mais bu waree taxaw ñu défendre fi yëpp ñu ñëpp a teew gis làmb ji ngeen nu mu demee ba mu tëjee yàgg na comme ni ma ko waxee dix mois a nii bu xoolee yéen presse yi ak ñeneen ak ñeneen yéen ñëpp a ngi liggéey ñu ñoo liggéey ñu bëri ba pare nag ñu gore kenn dégguñu ñu jàpp suñu ñàmbur kenn xamuñu ba xam suñu dépense manqué na kenn xamuñu ñu jàpp suñu ñàmbur te dañoo dajale suñu fond fuy Covid bi ëmb mi nii mën na ma seet ñu ànd ak Gris Bordeaux yóbbu ko ànd ak Matar Ba yóbbu ko ministre de la santé jox ko bu bari te boobu ba léegi ñu ñëpp ay impacté lañu bu xam ne amul kenn bu gën a impacté ci Sénégal que mbëri jël benn avance di xaar 10 mois pour bëri am suñu fla suñu fàtte suñu personnage toog gàpp suñu am loolu rek dafa war a tax lépp lu ñu war a def rek koy bàyyi mun ngaa bàyyi ku nekk mu bëri mu def lu mu métier léegi nga parce que mbër yi dañoo ànd ak góor ànd ak fulla ak te a rafetlu gis nañ situation bi nu mel ni nga ko waxee rek ñu proposé que bëre moom moom lañuy suñu métier la ñoom ñu ngi liggéey xamante ni génn ñu sànni xeer génn wuñu offensive la état génn wuñu dañoo jàpp suñu jàmbur mais bu wax jotee gën a organiser lii nee naa a toog fu ñu di wax mais lu am solo mooy ñu ñëpp dañuy toog ñu wax kàddu nekkul Boña moo yor kàddu parce que Boña moo gën a tuur ci mais dañoo war a wax làmb ji fi mu toll nii ay proposition rek fi ñu duggoon ñu bëri loolu nag forcé wuñ ko mais état le président Macky Sall ñu ngi koy remercier de passage parce que ñun duñ fàtte démb dañoo tabaxal arène nationale plus de def loolu ñu wax ne faalewul la waaye bëgg nañu beaucoup plus de considération état jox ñu ko parce que ñun bëri élection yi ñu fi président dëkk bu mu dem rek bu demee passé dina ci jaar ci turu Modou Lo Papa Sow keneen ak keneen bu ñëwee Pikine dina ne Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang keneen ak keneen te loolu yëpp ci marketing am la bokk ci élection am la bokk mais ñooñu nag après bu yëpp jeexee da leen delloo la ñu moom li ñu moom mooy ñu ñaan ko ko mooy ay ñu ñu ñuy toog fii yëpp ci fee di nga am dépense ñu ngi sant yàlla mais dafa am suñuy rak ak rakkaar yu nekk ci suuf yoo xamante ne ay mbëru te ñun ñi war ñu nangu mu mu ñu mujjee puso bi mu réer si ñun kon suñu rakk yi dañuy jàpp donc ñu dañuy wax pour suñu bopp mais dañuy wax pour suñu ay rakk li war a bëree te loolu moo jaarul ñoom ñëpp dañoo war a ibi laama ñu ñu bëree ibi laama ñu bëree nag waxuñu ko parce que xam nañ feebar nii fii mais ñu respecté ci change ci stade bi mun nañ def proposition boo xam ne stade bi gis nañ arène nationale lu mu yàggee seer bi ñu toog beneen seer bi ñu tëb ko beneen seer bi ñu toog organiser ko ñun bëri ay responsable la supporteeru làmb la ñoo bëgg làmb ta xam nañu làmb lu muy apporté te ñoom tamit ay responsable la noonu la demee noonu la demee te loolu am solo la donc ñu teg ay proposition daan di ah ñun kat bëgg na leen ubbi làmb mais nii ngeen di def da ngeen di bëre ci wii kono wala da ngeen di bëre boo xamante ni siège yi bu ñu toogee beneen dañ koy tëb seen i supporter ngeen wax ak ñoom ñu respecté wala mbër bu ne may na la temps boo xam ne maximum moom ngay dugal mu bëree parce que nit tamit li nga xam ne mooy gagne-pain mënoo ko xaaj téye bientôt un an dafa métti pour suñu te am na loo xamante ni foo ngeen bàyyi wax am na suñuy rakk yu bari yoo xamante ni ñu wax ko ak ñu wax waa mbër yëpp a ngi nii am na suñuy rakk yoo xam ne dañuy dem ci géej te ay mbër lañu woon man bari na ci xamante ni bari na ay frère ñoo xam ne ay rakk dañooy woo mbër ñu ñu bari maa ngi génn dañ leen gànnaar lu yoon jarul yàqal dëgg la affaire yi métti na mais nag gis naa ko dina baax donc parce que loolu perte espoir moo tax ñu dem ci ndox mi waaw ñuy jaar képp koo xam ne ñàkk na bakkanam ci ndox ak képp ku jabar bu ñàkk bakkanam ci ndox mais di leen wax ne situation làmb moo tax yëpp am làmb gaan bu ñu nekkee di bëre mbër na parce que gis nañ mu lu ñu am baax na dañuy dem tëddi mais booy bu ñu gisee amuñu dara ba pare fi ñu doon booleeg dindi fa seen stress tëj ko ko après booy duñu xam fu ñu jëm quoi dafa métti côté boobu ñu bàyyi ci xel parce que suñuy rakk yu bëri ñu ngi dee ci géej gi te loolu dafa métti ñu ngi masawu ñëpp nag loolu laa bëgg état bi mu bàyyi ci xel mu xam ne ñu ngi nii taxaw benn problème lañ def ñi ñëw ñi ñëwul parce que am na ñu mu naa ci lii laa nekk ci nekk kenn bu ma limee sax may jub dama may lim ku nekk ne ma mbër ci lii laa nekk may maa ngi dëtu pour ak yéen donc nag ñu bokk ndey bokk baay gis nañ mbër yu ndaw yi sotti yi ñu ne loolu suñu grand yi bu ñu seetaan suñu grand yi ñu leen dégguñu mais loolu dëgg la mais nag ma wax leen ma lancé na appel bi neen seen grand yi mosul def ginnaaw parce que xeex bi ñu ñoo ko bokk waaw bi nag di wax ne mooy kenn waaw xëccuñu loxo kenn weñuñu kenn génnuñu taal pour ñu dara te nag mbëri bi war a bàyyi xel la nag te buñ nekkoon ñu xool suñ population bi def loolu parce que ku ci nekk fii milliers de personnes yi sa ginnaaw kenn ku toog ku ne rek milliers de personnes yi sa ginnaaw bu ñu génnoon yëngal day demee neneen mais duñ def loolu parce que ay responsable la mais lu ñuy def moo dañuy toog wax ak bi ñaan ne ko nag par rapport ak Bira Sène mi nga xam te ni mooy président du CNT ay protocole sanitaire déposé de l' état mu xool mu bëri bëree ñu defal leen affaire gars yi respecté seen max dañ leen bëri bu nekk au moins di ko dugal tant de personnes gars yi bëri parce que affaire yi dafa métti laa amoon may wax ñëpp mën ñoo jël parole mais am na yoo xamante ne ay thèmes yoo xamante ne sama kàddu nu mu amee solo ñoom seen kàddu noonu la amee solo buñ paree ku nekk dina la jox ba sànni mais di wax ne nag man pour ñaa maa ngi wax état bi ñun mbër yëpp ñu ngi dajaloo xeexuñu puloowul ñu pulo mais luñ bëgg mooy suñu métier bi ñu am muy làmb ñu ubbil ñu ko ñu bëri tout en respectant les mesures barrières xoolal ni solution bu ñu bëree ñu bëri parce que ñu ko rek lañ boo béyoon kenn dégguñ ñu ngi toog jàpp suñu ñàmbu suñu dërëm suñu ñaar kenn xamu ko te Covid 19 bi amee nii gis noonu mu demee dañoo dagale suñu dërëm boobu amuñu sax avance mais dañoo dagale ñu am yóbbu jàppale te population bi instant yii merci société euh, population bi fu mu nekk situation bi a xam ñu bëri parce que mbooloo mooy topp suñu ginnaaw Papa Sow wala Boña wala góor sax day dundal këram mais day dundal yeneen kër parce que yàlla moo ñu tuddee moo moo damay gis nag état bi parfois mu dimbali mu dimbali les personnes culturelles wala mu jox leen ay subventions mais làmb dama gis ñu boole ko ci pourtant làmb culture la mun na wax culture génn ci làmb ñun culture boo génnee suñu métier rek amatul solo li ñuy def kon leneen lay doon te leneen loolu MMA ñu koy def ñeneen ñu koy def mais ñun boo gisee ñu xam sport boo xam ne ñoo ko moom muy sport de chez moom moom ko muy ñu xam ne bokkuñu ko kenn parce dafa am culture. parce que gars yi dañuy takk gàllaaj gars yi dañuy yor ñàkk yi toj ko yi dañuy daw ay sàmbal yëngale sànni bi parce que loolu moo tax gars yi bëgg ko ëmb day wàcc ci tànk yi day ñëw commencé loolu da koy yëngal dëgg culture Sénégal te génn ci làmb donc ñu def ay subvention di ko def comme culture yi dina ko jox dañ ci war a boole làmb laaj ñu dara rek ñu ngi sant yàlla mais loolu laa amoon mooy sant maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier ñëpp moo bi ngeen noonu nag sama confrères yi war nañu ci jox bi tamit presse parce que c'est pas évident loolu neexoon ngeen toog seen kër mais xam ngeen ni ñu ne yéen waaw xam ngeen ni ñu ne yéen ñoo ñu ne yéen bokk mbir mi ñun dañoo bëgg presse bi te yéen tamit da ngeen ñoo bëgg parce que seen liggéey ci ñun la basé wu ñun dem leen gëm parce que ñun luñ dara taw woowu ñu leen yéen xam ngeen loolu waaw ñu ngi leen gërëm bu baax baax di nuyu Pape Thialis gis nga damaa nekk ci contrat waaye moom moom moo yombalal lii comprendre nga. nu ma tollalee mbëri rek di leen wax benn information Tapha ci boppam sama sama numéro woowu. parce que ñun ñëpp ko ko dama ko woowee dama wax mu yëngal ko pare da ko mbër teewal bu ñu paree dañu fekk parce que noonu la demee parce que affaire bi la ñu waaw bu ñu waree def dara gars yi dañuy dajale ñu dóor ko mu daanu la waaw loolu esprit gentleman boobu a bu guddee ñu dem xeexi jeexee jara kon ni ma ko waxee maa ngi remercier nag kii xam ne moo ma jox salle bi ñu ngóobu public waaw xam nga lii gis ngeen macha allah yàgg na te doobu te doobu public moo ko fi bu ko neexoon mën na ko def almadi ëmb wala mu def ko feneen mais dafa ñëw ne banlieue laa koy def boo toogee maam moom lu ma tëkk wax Ousmane mënu ma mbër mu naa mënu ma dama bëgg bët yi ñu xoolee ku dëkk almadi wala Ouest Foire ñu xoolee ko bu dëkk Pikine Ousmane maa ngi koy remercier bu baax di ko gërëm am na salle musculation bu nekk si kaw démb dem naa ko visité ko valeur de cent millions la fa def waaw waaw diwaan ñoom Papa Sow nag ñu ngi leen di commencé pour cent parce que ñun am na salle moor fii ci kaw waaw di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp kaay jërëjëf merci beaucoup muy sama diggante ak Eumeu Sène sama diggante ak Lac suñu grand la ñu bëgg ko loolu fonk ko ku ne xam nga ni ñu sonn ci moom bu baax moom nag muy sonn ci ñu nekk suñu grand suñu diggante ak moom pour ma assurer leen rek bi la gën a neex sax wala ku xam boo ñëw am esprit boo xam ne man jantan mel te kii sama grand la dama doomu góor laa au moins sekk nañu teraanga yu rafet di wax ni moo la déggee tan moo koy wax dafa mu ñëpp ay frère la déggee rek na bokk combat bi bu neexee sax mu wax la loolu am na droit wax la loolu parce que daa war a la bu neexee mu ne après nga ñëw parce que boo teewee dafa mel ni dama dama lay bàyyi nga dem. waa ci ñëwoon sama frère la adna mu solo kii bu ma kon nag duum kon ni ko gisee moom mooy sunu mag pour ñu wax leen dëgg rek lu ko neex daf ñuy neex lu ko métti daf ñuy métti parce que sunu mag la waaye nag tamit suñu frère la adversaire lañ fekk ak moom weesu adversaire mais Lac pour Sénégal yi comprendre am esprit sportivité xam am na droit wax ko lu ko neex parce que a tegal lu a tegal lu yomb loolu am na droit boobu ëma tamit comprendre nante la waaw ñëpp ñoo bokk ndey bu ñu paree ñoom ñaar ku ci daan da nga yëgal sa borom ñu ngi naan nag ëma yóbbu ko topp sa incha a loolu bu ko kenn xam yoon la ay déstabiliser adversaire am loolu baax na loolu moom affaire fi toll ni aspect bu positif la juróom parce que coow li bari na ñi ñaa ngi naan lii ak lii bu amee bu amul combat am lay defar ñu ngi kontaan ci loolu bu baax a baax boo ñaa encore li ma doon wax léegi ñu ngi leen di félicité yéen bëri yi nga xamante ne ni yéen yéen lañ tolloo génération ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi di gërëm suñu waajur di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di nuyu bi yëpp di nuyu tamit sama mbokku mbër yëpp bu waxee Papa Sow bu wax Baye Mandione rek yaakaar ñëpp nag ku nekk trop ñu bëri jaar naa loxo ci wàllu bëri jàngal nañ ba loolu ñuy ñëpp di rafetlu nag vraiment. teewaay bi li Boy Niang def defal na ko Sénégal yëpp defal ko mbirum làmb yëpp monsieur kontaan moom bu baax a baax a baax man daal lu may wax naa li muy wax bu bëri day gàtt rek mooy que mbër ñoo bokk ndey ñu bokk baay. ngir day wane ñu ñëw bokk ndey ñu bokk bàyyi li booy di aju wax ni boo bu jeexee rek jeex na waaw buñ dajalee saf saf parce que fii am na ñu bëri ñoo xam ne dajaleñ fi laale am ñu waxee nii seen combat taxaw na te ñu fi a bëri Tyson 2 tey gisoo ñu ñuy toog ñu bokk seen combat Siteu Papa Sow combat gënu bëri waaw vraiment Papa Sow nekk suma nekk suma xam ni dañuy wane ni rek ni euh, làmb sport la ba ni yeneen sport yëpp man nag lu ko woon wax daanaka boo ñëw wax na ko Malick Thiam wax wax mbër bu nekk dafa mbër ginnaaw dafa yaatu. parce que dañ ni am na ñoo xam ne tey bu ñu amee bu ñu feebaree ci mbër mi lañuy jubal si ñii ñoo leen di des seen problème yoo xam doo mu sax wax heure bu nekk lañ fëgg. ñun dafa mel ni ñooy monsieur le maire parce que façon recevoir bu nekk lay recevoir bi te amuñu droit di leen di leen di leen lépp lu ñu am rek dañ koy bokk ñoom mu bëri ak mu néew. kon tamit aussi bu gars yi arrêté lii rek dafay métti rawatina tamit kon ni moom dégg naa am na équipe lëmm boo xam dañoo dugg ci gaal yi ay marché wu ñu leen di marché wu di jaal tamit képp ci sa doom wala sa frère. ñàkk bakkan bi gaaw di les deux tamit vraiment ñu koy jaale bu baax di jaal ñëpp waa rakkam ko ñu di jaale tamit aussi Balla Gaye ñu koy jaale Balla Gaye numéro un bi gaañu waaw ñu xam naa tamit aussi dafa ñàkk jot mu rat du nuyu ñëpp ak magu papa tamit di nuyu ñëpp di nekk ko sant di wax ni du nuyu président bi di ko jaaree tam aussi ci ministre des sports bi nga xam tam aussi mu yor sport ngi koy leen ñu ngi leen di ñaan dañuy tam ñu xoolal ñu ban solution nga mën a am pour ñu tàngal suñu yaram pour ñu a ñëw bëri parce yor dañ koy bokk doomu a yëpp waaw vraiment seen di wax ni tam aussi sport la comme ni nga waxee man am naa coopération bu baax que ni tey mere naa ko may jàppale ci mu ko dara euh, soo doon xoolee image yi maanaam su ma doon tànn xarit na laay tànn xarit boo doon xoolee image yi nga ko gis parce que yar ko gisoon ci moom ak tey ko gisoon ci moom nit nag doomu aadama bu nekk yàlla moo ñu sàkk si ñàkk mat soo deful erreur ndaw di nga def erreur bu mag suñu matuñ yàlla suñu borom duñ topp doomu aadama leneen la ñuy doon ñu ko nekk dina juum yàlla moo sàkk si ñàkk mat waaw kon tamit xam naa dafa accident laa ne dafa juum mais amul problème sport la mais tamit lépp lu mënti am rek dañ koy yemale ci cadre sport waaw wax ji li ñuy wax ni seytaane waxu dëgg yàq na xel lu mu ndaw ndaw mu koy toog sax bu dee ëmb seen xel xawoon jam ci loolu day xaw am lu muy ñëw sport dañ koy cadré ci wàllu sport benn tàpp sàmm la dañ ciy laale maa ngi yóbbante nag mais ba nga sàppee du yomb ok gars yi merci ah jaajëf jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax suñu papa Maxime Bagane gars yi ñoo ñaan ñëw taxaw bi ñu ngi ci kàddu ci suñu suñu papa yi jërë ngeen jëf. baax yaay. waaw tàccu leen loolu. maanaam ñaata ku ko wóolu. waaw di nuyu assistance bi yëpp. di nuyu yaa di la nuyu. di nuyu nag champion yi fi ne parce que yéen ñii. tuxkatu cigarette sax dañuy mayee tembe ko rawatina guddi la. am na solo. doo ñaari mi def defal ko boppam ñëpp la ko defal. te defe naa ne man kenn jiituwuma ci. waxuma ko pour ñu ne kii day jaay affaire connaissance di wane ne moo am connaisseur la man yooyu yitteelu ma ñun dañoo jagoote xale yi. boo seetloo bi ñu falee CNG bu bees bi. am ñuy contesté dama dem man du xeex làmb li ma ñor mooy même ñu fal ko amul compétence te ne ci ginnaawam jàppale ko moo gën ñu fal ko am compétence te jàppale wuñu même buñ ko deful ngir moom ñu def ko ngir suñu njaboot yi yaakaar làmb war cee teral seen i njaboot am solo mooy amul temps bu bees bi ñu jàppale suñu doom yi ñu mën a bëri pour mën a réussir man loolu moo ma ñor léegi ñu ne làmb ji bon Covid bi am na ñu dajale leen moom dajale seen i jéem ak seen i taxaar yóbbu wane ne dañoo bokk ci dëkk ñu ne dëkk feebar bi ñu dem ba am ni ba saison bi war a ubbi ñu ne non du tudd huit kilos du huit bu cent jours amee juróomi événement yu bari nga ñëw ci am yoo xam ne boo jaayee paas dinañ ko mën a jënd fii ba extérieur yeneen combat yëpp. combat yi ndaw lañ doon yooyu boo ko defee biir kilo kenn du ko seetaan te amatul sponsor yu accompagner promoteur yi. promoteur yi difficilement la ñuy dëkk. mooy waral ñu jox ay billets nga jaay ko jël ci avance parce que amuñu ay sponsor ñooñu boole huit kilos loolu mooy balaa bu ñu tijji. huit kilos ba mooy balaa bu ñu tijji parce que lamb ji yëngu ci Modou Lo Eumeu Sène Boy Niang Kay Siteu ak Papa Sow ay Tapha Mbeur bi ay champion lañ Papa Sow dañ koy bégee. waaw Sokh mi champion la waa Pikine dañ koy bégee. te seen i événement boo ko defoon huis clos am na ñoo xam ne duñ mën a jënd ay pass di ko seetaan kon huis clos moom mooy plan baax. parce que dañuy wax sax donc ci son bopp vraiment. kon nag suñu mbokku journaliste yi amul seen fay. bilaay bilaay parce que boobu nag da nga ñëw boo amee lu may taxaw rek da yokk sa force. dëgg la te boo xoolee tey ñaata saa boobu am te boo xoolee continué bariwul mais kenn ku nekk rek da ngay def sa borom quoi. yi nga xamante ni teewul dina la yomb te amul benn sport Sénégal ñun ñu naan yaa ngi dégg boo jaayee wax wax dëgg yàlla man ñu waxee c'est la première fois ngay gis ba def état bi def ndax boo doo waral boo ko yëgee yaa ko sonal téléphone la ñu ngi suñu woo suñu yow moom la nekk incha allah ndax dañu ñëw fu fan la woowee mais bu ñëwee foo xam kenn awu la fa loo fa la jaafee dëgg la dëgg la xam nga ma koy université ñoom quoi di nuyu suma grand nit ku baax la yàlla mën koo def xale ba léegi. dëgg la dëgg la dëgg la waa Sow. bu baax a baax muy bëri bu baax bu yaru. war a soog c'est un vrai ziar bu baax France maanaam pour nga ñu quoi ñoom soo ko damaa ko muy ziar ñëpp. nga bëj may wax ne xeex bi ñëpp ko bokk wallaahi. parce que li père Baskone wax léegi moom moo fi am boo demee ci marché yi da boo xool te jotaay bi ñu ngi takk mas yi ñu takk mas yëpp sax te kenn waru fi kenn dara. soxla rek xool corona. non bu ko defee ñu takk mas dañuy rey wala dañuy wàll kon ñun ñëpp ay corona te bu soobee rek ñu génn fii kenn am benn cas pour ñu soxla ay corona quoi vraiment bàyyi li ñu liggéey. maanaam bëgg mu wax. li mu dara sax. lay yëngal waaw état bi pour ñu naan ba ñu fa ñu bëri. li xool nga xamante ne bii naka la. waaw yaa ngi dégg. waaw bu ñu koy jàmba ji foofu ba léegi xam nga ci ñu wax rek moom. ba léegi bërëb ñun gannaaw. ñun ñun gannaaw quoi ndax ñun kenn ku si nekk rek. yàlla ci mën a ci gannaaw ndax boo ëppee doomu aadama yi ñàkk ko sax arrêté day béy la rek mais boo ëppee nit ñi ñàkk ko sax yàlla may nit ñi mais tout rek mbir yi nga xamante ni ñoo def ci làmb ji tey di toog 3 ans defar place foo leen bëgg ndaw su fay 100 000 200 000 moo de place 3 3 3 ans quoi bu gisee au Malaga bu gisee ak ak da ngay la gaaw daa dem moom nga ay gaal. oui oui ñooñu dem tey si gaal yi des fois dañuy sant yàlla bu baax a baax yàlla yàlla soobu na yërëm. salaamaaleykum mbooloo mi. Hmm. ma ne ko def nga li nga war a def. ndax kañ la ñuy wax ku war a wax ak fan la ñuy wax dama am solo ci communication. lii man su ma gisee monsieur monsieur monsieur. Senghor jël def def sorte ñu hmm. ko rafetlu lool lool lool c'est parce que fu war a wax ak man kañ la war a wax ak fu mu war a waxee boo ñaar ñu mu jël fii la moo tax ñu ngaan la boo ñaar fu hmm. def na geste noble def na geste kilifa def na geste responsable loolu weesoo nag ku ne xam ne ñu ci jamonoy euh, mbas ñu uh-huh. ngi masaw képp ku ci ñàkk bakkanam ñu koy jaale seen ay bokk hmm. te ci la hôpital yi yàlla yëkkati ñëpp wàllu wàllu mbëkk mi nag ñu ngi jaale suñu mbokk yu bëri particulièrement ñi des si biir. masu tamit yeneen yi xamante ne tey ay mbokk yu seen dara. ginnaaw bon monde làmb nag ñàkk toog fi nekk di nuyu champion yi suñu grand suñu morom suñu papa yi. suñu jigéen ñi nga xam ne journaliste ñëpp ñoo ngi liggéey mais ñun mënuñu waxaat leneen léegi suñu grand yi wax ak suñu frère boo ñaan lu wax suñu papa Sow nekk suñu grand frère yi wax ñun mënuñu wax leneen man damay wax ni di wax ne boo ñaan man yow laay wax damay wax ne lii nga def nit dina am ay junni junni junni junni junni doomu aadama def nit ku naa yor bu dee jeex dama def mais lii bu amee ñun dañoo war a wax li nga xamante ne tey mooy ñi nga xamante ne moo ñu tax a jóg mooy métit maanaam fu mu méttee fu mu méttee ñun boobu nañu ñun jafe-jafe bi ñu gën a am xam nga ngeen wax si làmb wax nañ si làmb ba pare te li ngeen wax si làmb ñu si jaaraale day nekkaat loo xam ne dañ koy rafetee bàyyi nga jël ba nga wax sànq mais li muy waxee moom xol lay waxee parce que li waxee xol dëgg lay wax mais tey xam nga tëdd boo ko jëlee suukar ko ba mu sax nga joxoon ni ngay naan ñun loolu la ñuy def man côté bi may waxee mooy jeunesse bi jeunesse bi waxuma làmb de damaa romb làmb mooy nit ñi ñu dañoo dëkk si banlieue fi nga xamante ne foofu la coono tàmbalee man damay yeewu ay nit taxaw sama guddi gën parce que alxuraan damay war a dégg damay bàyyi sama dégg jox nit lu métti lu tax ma koy dund man mun naa ko mais est ce que keneen mun na ko nit ñi liggéeyul nit ñi amuñu da ngay sa yaay bu soxla junni nga koy xool nii te mënuloo ko kooku nga dem si géej gi xaru dees moo la ko gën a nañu ñoo koy xeexal pour mu jël réew moom bu kon tey nag bu ñu soxlaa suñu kàddu am lu ñu métti am loo xamante ne mooy suñu noonu ñu xonq da ngay jàkkaaroog ñu man man damay dem ba sax damay jëlale daal billaahi yàlla daf ko déglu doonte xale la ndax man damay gis koo xam ne ci te ci biir li ngay xëy lu nga def transport pour nga jox ñu dépense ba ñu xëy doog si kër gi nañu jàppale nañu état jàppale lu ñuy jàppale nag mooy liggéey mooy ñi am xel ñi am xel mën a dugal keneen ak keneen ak keneen ñu jàppale ko xalaat boobu jëriñ keneen ak keneen. ki am doole ñu xëcc ko ñaata hectare ñu nekk si àll bi ay tubaab ñoo koy jëriñoo. dëgg la waay ñoom lañ koy jox ñu ñëw fii jël suñu emploi da ngay dañuy ñëw si biir dëkk bi fii nii gis koo xam ne day ñëw investir jóge siin wala feneen ak feneen ñëw investir jël suñu kattan di koy liggéey ku ñu waree fay dix mille francs dañuy fay ay mille cinq te ñun suñu nijaay wala suñu kooku moo ko naan ko ñii ay doom lañ ak mille cinq cent liggéey parce que dañuy liggéey nag gisuñu dara président jàppale ñu boo ñu jàppalee sa bopp nga jàppale boo ñu jàppalee sa njaboot nga jàppale xamal li gën a am sax ci àdduna mooy ndaw ñu ngi judd muy waxee boole la ci fi demee bu bàyyi sa appareil na la war sa loxo jox la ñoom ñun jox nañ la suñu lépp parce que alxuraan man xool laay waxee man soxla ma dara mais li may gis bëgguma ko gis président dimbali ñu bu dee góor góor góor góor yow dimbali ñu